daleen ak jàmm soxna Aïda Diallo desut benn yoon ginnaaw ci xeex bi ñu sumb ngir daan coronavirus fii ci réewum Sénégal ginnaaw bi mu yëkkati woon lu toll ci 15 millions yi jox ko état bu Sénégal ngir dimbali leen ci xeex bi soxna Cheikh Béthio bi woon defati na ab don bu am solo ci wàllum ravitaillement ak matériel sanitaire ngir xeex jàngoro ji foofee ca Médinatu Salaam di dëkk ba ñu ci borom këram bi génnoon àdduna ci weeru mai 2019 soxna Aïda yëkkati na lu toll ci ay saaku ceeb yu bari ay saaku meew ay bidongu diwlin ay gel antiseptique ay gants ay masque ak bépp matériel bu jëm ci wàllu cet dimbalee ko waa dëkk Cheikh Béthio Thioune bi di Médinatoul Salam mel ni nag ci jamono joo xamante ni ñu bëri ñu ngi koy ŋàññi ci askanu Sénégal moom soxna si mu ngi wéy di amal ay gestes de solidarité jëmale ko ci askan bi xanaa dañ leen di bàyyi rek ngeen gisal seen bopp don yu am solo yi soxna si def soxna Ayda ay waay soxna Ayda Cuun jëmmi sëriñ bee ca jàngi nan ko ragal du jam guy waaw soxna Ayda Cuun jëmmi sëriñ bee ca jàngi nan ko ragal du jam guy far mu tënk yow yëguloo ñun li nu yëngal la benn balaay way waay soxna ay dëtu jëmmi sëriñ Béthio jaagi nan mu def ku ragal tax mënuloo wax dëgg gii mu joo xaw ma nooy jëriñoo soxna ay dëtu jëmmi sëriñ Béthio jaagi nan ko ca kaw ragal di jëm fa mu joxoñ fa mu jublu foofoo woor xol yëpp a koy ak ñun de neex na mu lool ma ay dëtu ñëm mi sëriñ bee ca gaañi doon ko wax ca ko ragal du jokk yi waaw cantakoon jogal waaw sa mbee ca cun asaaloo wuñu képp ko dagal la fasal jëfam ji na sëñ Béthio ne ku dëggal lii ànd ak yéen noo si ak fee tor cuun ne yaa may moom moo gën a wóor maa lay moom dëggoom gi siiw naa soxna Aja Saaliw boroomu noppi geeg dal gi wa fayul sa jëf mooy sunub sëriñ dogal ba wëy naa yow la woolu jox la ay mbiram yemante maa di yow amul payam sant ca luñ ko sant doyul askor sunu ngëm gi ñoŋal nu ko ci seen ndimbal ñageel nu ko ñoo ngi leen dagaan seen yërmande sax fi ba faawu cuur yeeslu nanu ci dëgg dëgg gi tey ñaan nangul nu ko soxna Ayda yaay sunub sëriñ gëm nanu te neex nanu sama sëriñ sunub sëriñ gëm nanu te neex nanu soxna Aïda Saliou Thioune dëgg-dëgg jëmmi sëñ Béthio yàlla na yàgg loolu dëgg na wér maa ngi siyaare ñëpp euh, tey ci mercredi 25 mars 2020 maa ngi nii ci Madinatu Salaam doon leen présenté euh, li ngeen xamante ni moo nekk sama gannaaw te dëgg-dëgg jëm sëñ Béthio soxna Aïda Saliou Thioune euh, faggu ko bu jëmee ko ci population waa Mbour ak képp koo xamante ni wërsëgam bokk na ci denrée yi nag ak condiments yi ak euh, article yi ko composé am na ceeb am na suukar am na détergent am na eau de javel am na saabu ordinaire am na gel antiseptique te itam café muy meew bi euh, li ko tëj mooy ay biscuit ay carton biscuit soxna si jënd am ko pour tas ko ci mbooloo mi ci population bi jublu ci jàppale leen jublu ci sant sëñ Saliou tuubal sëñ Saliou ci lépp lu mu xam ak lu mu xam te ñu ànd ko ak moom di santaat sëñ Béthio di ñaan soxna Aida yàgg fi mu yàgg fi loolu dëgg na wér ànd ko ak rakkam yi soxna moom daal santaat nañ sëñ Béthio ci ànd bi ñu ànd ak ñoom ñun cantaakon jërëjëfaat sëñ Béthio